seen ñetteeli jongante la AS Douanes soog a am ndam ci ñetteeli édition bu basketball Africa League mu nekk lool lu neex ki nga xamante ne moom moo leen di tàggat muy Mamadou Gueye paa bi d'ailleurs bi la yoon gis nañ ko mu am sax benn sourire ci kanamam léegi nag faw ñu demaat ndax li leen desee bariwul ay waxtu rek moo ci des balaa ñuy dajewaat ak beneen adversaire beneen adversaire boo xamante ne dafa nërmeelu ci jonganteem yi mu def ci basketball Africa League faw nag li ñu defoon tey ba am ndam 73 58 ci kanamu stade malien ñu dàbbali ko ngir mun a am yaakaar dem nag ci seen ñetteel ak dernière jongante booba dañuy dajeek ak US Monastir mu nekk grand favori bu bile conférence ñu dippee ko conférence du Sahara loolu moom mooy nekk nekk dernier jongante AS Douanes waaye balaay loolu suba faw ñu noppalu ngir nag jéem a amaat ndam ci kanamu stade malien loolu 17h30 lay nekk fii ci Dakar Arena fii nga xamante ne foofu lañu leen di joxal rendez-vous suba soxal yeneen information ci troisième édition Basketball Africa League mu doon Adja Biteye Pape Diop fii ci Dakar Arena pour la 7